salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw man maa ngi tudda Ibrahim fay waaw eh, dëkk Banjul Dobsin fii ma toog nii Fayen waaw suma baay Habib suma yaay Fatou Mbenga Adama Baro ñu ngi koy nuyu bu baax tey ñu ngi nuyu réew mi <clears throat> dinañ mun a wax ci moom lu bari waaw ci bi toogee ba léegi waaw ngir gis nañ liñ liñ njëkk a sant yàlla mooy bi nga xamee ne yàlla jëlee na ki fi nekkoon nguur yàlla moo koy joxe te moo koy jox ku ko neex waaw yàlla jëlee Yaya Jammeh teg fi président Adama Barrow waaw te yàlla na fi yàlla yàggal te yokk ko dañ gis ci moom lu bari lim mu njëkk a gis mooy ma gi yàlla indi rek ci réew mi ngir bi nga xamee ne mu ngi fi war a jógee ñun bi avion boobu di ñëw ñun fii la ñu fekk ñu ngi toog ci bunti kër gi <laughs> waaw bés boobu suñ mbokk yi ñi ëpp ñi dem nañ senegal su ma mag yi ne ma ma su jigéen ki ne ma doo dem Joosuwan ma ne ko waaye man bi man man de gisuma lu tax may jógee fii waaye keroog bi avion bi ñëwee ba romba nag ci laa ne ah dafa mel ni nag caaxaan dafa passé waaye amul dara loo xam ne maa ngi koy dafa mel ni fitna daf fi war a am parce que xam naa ne réewi jàmm la ki kuutal loolu nag muy yàlla teg fi kan Adama Barrow président man looloo tax ma bàyyi ko xel ci fi waaw ma xam ne kii wax dëgg yàlla ah bu dul dara sax am na joo xam ne mu ngi ko indi am na jamono nit ñi duñ daan nelaw léegi yaa ngi mën a nelaw waaw da ngay romb tamit gis ku nekk di wax lu la neex kenn faalewut kenn moom ci boppam nit ñi dañ koy xas di ko saaga sax waaye faalewut parce que ku bugg a jëm kanam wala nga bugg a réussir am fii coo ay waxi gannaaw yooyu yu ci bëri doo ko farataal te ku boot bukki xaj boobu la kom nan noonu la mbir yi tëddee booy liggéey da ngay jublu rek mu ngi may ñëpp seen jàmma may na ñëpp jàmma waaw ah ñu toogaat ba ci kanam ñu gis ne ay tëj yi la yëpp di di teel nit ñi di leen sonal loolu gisuma ko ñu toogaat ba ci kanam ñu gis ñuy defaraat tali yi man dama mos a jógee Dakar am naa fa njaboot ñu ñëw terminal am ku ma àndal mu di ma laaj waaw fanay seen capital bi <laughs> ma ne ko fii la di waaw waaye maa ngi ko koy wax ngir dégg laay wax waaye maa ngi ci am kersa waaye ma xam ne rek yàlla dinañu dimbale nawet biñ toll nii buñ fa toll woon dañ daan jaaxle torop tey nag koñ yu bari ñoo ñu jiitu waaye tey ñu ngi ayengum suñ koñ xëj na buñ paree fii feneen lañ jëm te loolu am nañ yaakaar ne Banjul lay wóor waaw yàlla moo ko dogal nit ku nekk ak li yàlla dogal ci yow président Jawara nekkoon na fi thirty years waaw lii amu fi fii la boos yi daan jaar GPTC boos yi dem ba kaw del siwaat waaw ñu jógee fi Yaya Jammeh toog defar na kanilaay alhamdulillah loolu la ko yàlla defloo waaw président eh, Baro bi président Baro toogee a ah, li ko yàlla defloo ak xel bi ko yàlla jox mooy mu ñëw jàppanteeg waa Banjuli ngir fii mooy capital bi te xam nañ ne fii soo ko jàppee rek jàpp nga ba base waaw.